waaw ginnaaw bu ma sante yàlla di julli si yonente bi di sant samay ñaari wayjur di ñaanal no mort de l'armée yàlla yërëm leen te yéexeenu te xare leen ajjanay firdawsi di ñaanal tamit ñi nga xamante ne da ñàkk seen bakkan ci événement mars yi passé yàlla yërëm leen xare leen ajjanay firdawsi waaw soldat Mohamed Kanté mi doon benn soldat bi incorporé le 2 mai 2019 ci bataillon boobu ñu naan e bataillon d'instruction sénégalais yi gën ko xam ci turu Bango mu def euh, formation bi euh, formation initiale du combattant durant 4 mois bi nga xamante 65e et ak 66 e promo FQG cadre yooyu ñoo ko formé ñu koy affecté BAT arti mooy corps IRG boobu mu servir durant 2 ans nga xamantene ne devise moy en tout temps et en tout lieu faut le servir deux ans bon jot na faa def lu bëri comme servir base arrière si compagnie am muy euh, sept mois ci lañ ko nommé première classe Mohamed Kanté le 12 juillet le 16 ñu yóbbu ko Casamance mu nekk fa sept mois quinze jours ak yeneen ñaari compagnie yu mu jot a liggéeyandoo foofu le 17 février 2020 fii ci Ndakaaru di def stage bi formation formation qualification d'emploi C'est le triste fin fin de carrière soldat Mohamed Kanté tracé Waouh, waaw moins soldat Mohamed Kanté en effet bon le 8 mars 2021 nous avons eu suñu corps de stage fi ñu doon stage mu di bataillon santé

bi wonen bi wax ni ka dañoo wara dem distribuer graay moy yobbu agn biñu yobé agn ci sur euh, trois postes bien précis ben bi poste medine la biñ fa joggé dem nañ technopole ñu joggé technopole dem poste tiaroy biñu paré ñu wara déllu ci ñu jotaat benen ordre de mission bu consister au ramassage des plats ñi commencé fofu ci poste tiaroy ñeu technopole joggé technopole ñewat poste medine bi ñëwee poste Médine récupérer plat population sénégalaise ñi ngi dellu bi ñuy dellu tombek ñun jot nañ suñu ordre de de bi ñuy dellu ñu jël euh, voie bii di lié poste Médine rond parce que ñun camp Bel Air lañ nekk bi dellu nag bi ñëwee ba niveau du rond-point Colobane vers yoon bi jëm euh, place de l'Obélisque bon amoon na ay euh, tir de lacrymogène yu population bi doon si biir léegi man maa ngi woon ci ram bi ma nekkee ci ram bi deuxième véhicule bi mooy véhicule de commandement bi fi chef de mission bi nekkoon mooy woon si ginnaaw léegi biñ seenee ful bi chef de mission bi doublé oto yi pénétré ful bi boobu nag sénégalais yi ñu ngi woon ci ay euh, ci ay xat parce que tey tey ji odeuru lacrymogène bi rek métti na comme ñun duggoon nañ ci biir ful bi ful bi wër nañu amatuñ fenn fuñ dem bon on a reçu l'ordre de ranger nos armes bi ranger suñuy armes on a fait l'analyse nga xam ne fii tey tey jii seize millions de sénégalais devant nous dix-sept millions même taxaw suñu kanam ñun soldats armée jàngaluñu maintien de l'ordre armée guerre la ñu jàngal muy lan protéger notre nation contre l'ennemi qui essaiera de pénétrer nos frontières. Je dis que la population qui était devant moi, la mienne, la vôtre, celle du président de la République et celle de tous les Sénégalais. Bon, jarul muy une bavure militaire et civile parce que dit, ce n'était pas l'ennemi qui était devant moi mais c'était l'ami car quand on dit armée, le mot qui s'en suit, c'est nation. Et nation, c'est la population sénégalaise. Légui, ci laa def geste boobu wan au que sénégalais Nous ne ak yéen ñoo far tey tey mën naa négocier ak yéen ngeen bàyyi ma ma jàll ngeen man ma bañ d'or, dóor yéen ngeen d'or. parce que tey tey jii man un frère la yéen samay sœur frère vous êtes des amis des oncles des tantes qui sont ici pour manifester votre colère donc gisuma intérêt Vous, tey utiliser arme la seule manière c'était de négocier de sympathiser avec la population pour pouvoir continuer notre mission et aujourd'hui alhamdulillah parce que cette idée quand je l'ai eue dans la tête mononani, non mais je l'ai exploité j'ai eu victoire sur cette idée parce que ce jour-là je peux dire que j'ai désamorcé une bombe ici au Sénégal Car, non, la demain. Nous sommes ma ñi ba population bi bàyyi ñu ñu nous nous continuons continuer de route ñu le cantonnement ñu defaat li ñu dire détachement d'intervention rapide Il est ba 19 heures chef de mission bi yeewi ñu vous pouvez rompre les rangs dem faire une remise en condition pour mieux encore être prêt pour une nouvelle mission ñu def loolu ñu dellu suñu corps de stage fi ñu jëlee woon ñu dem sangou. parce que tout jotuma woon sangou, parce que dama ne bon à toog harat. parce que peut-être une mission bi nga gën a encore encore fekk sangou, nga muy lolo. comme nous sommes en alerte je reste en alerte ma toog aux environs de 22 h heures sergent chef ou ma téléphone même ma ñëwal wuy si poste police madame dem wuy ji poste police mu ma ah sa billet de ngi ni da nga wara a dugg tool ko prison militaire moy tool ma pour quel motif ñu ne ma bon y a des supérieurs qui ont trouvé Nika. » moi j'étais en train de manifester mon contentement sur la libération de Ousmane Sonko ci l'olu, ñu dugal ma tool le 8 mars à 22 heures et presque 23 heures ma dugg tool ma tëdd ba la lendemain ñu andil ma li ñuy naan compte de punition CR ci CR boobu ñu bindal ma si motif bu bu bu bu yéeme motif bu yéeme mooy lan euh, motif bi nga xamante ne tey tey jii mën naa ne mënoon naa bañ ñàkk kii désamorcé bomb kii wane ni que Sénégal ñun ak yéen ñoo far parce que man mi takk tenue bi sama épaule gauche def ma fa drapeau Guinée Bissau ou drapeau Mali ou bien drapeau autre chose vert jaune rouge bi nga xamante ne étoile cinq bandes moo nekk sama épaule qui symbolise l'étendard de ma nation donc ñu taxaw foofu noonu yëpp euh, couleur vert rouge laa gis ñu yëkkati seeni T'es tamit jàpp na ni foofu leneen fa am ci may malgré les multiples rappels de neutralité des forces de défense et de sécurité le premier CST moy canonnier servant tireur de première classe Mohamed Kanté s'est littéralement donné un spectacle avec des gestes éloquents devant une foule en liesse ainsi il a fait preuve de grande légèreté il a manqué de retenue pour éviter ces types de comportements qui sapent le renom des forces armées motif si je reconnais les faits ou non Mais ah je ne reconnais pas les faits parce que se donner de, euh, un spectacle avec des gestes éloquents là c'était pas le but mais c'était de sympathiser ñu de seer bi ñu ñëw tijji tool bi andil ma benn téléphone mu wuyul benn officier wuyu ko mu ne ma carrément armée kenn du xëccoog moom armée kenn du xëccoog mu ne ma il faut nga signer CR bi ndaxte instant bi nii soo soo contesté rek ça devient problème ci code bi dañoo ne soldat su bañee signer CR tolaar sax laay wax su bañee signer CR am na droit def revendiquer à voir le chef de corps ma def lolu, y en a pas eu de revenu Ni toog ma continuer sama peine purgé ko huit jours Ni delloo seer bi ma tëdd huit jours tôt. huit jours il bu mu ma laché. j'ai demandé un peu partout les gradés du camp le si adjudant du bataillon ne ko huit jours yi jeex Donc, ndax mën naa am une notification bi permettre man ma continuer si biir tôt, bi parce que c'est pas évident huit jours yi jeex ma toog fii là ça devient une détention arbitraire Du lolu amé tamit kuma laaj li le wax moy il faut accepter les suggestions de l'état militaire ñaari réponse sur la doon jot bon était de 25 jours le 8 mars le 1er avril vers 14 heures lañ ma indil lever de groupe ñu wone ni que man tay damay genn tol ci da genn tol ma dem euh, continuer sama stage pour mi jours pour stage bi continuer stage corps d'appartenance congé congé congé 16 jours parce que armée ma deux ans durée légale droit vingt jours de congé libéral mais jours la parce que je devais revenir vingt heures avant les rengagements bobu man ma première si sama notation waroon rangage parce que man je n'avais pas choisi d'aller faire des concours et autres j'avais choisi de laisser dans l'armée parce que c'était le plus grand rêve que j'avais de ma vie c'était de servir mon pays jusqu'à la dernière souffle de ma vie bon parce que tey di nous ku ñu xam armée képp ku jaar bataillon c'est gis couleur da ngay dem da ngeen soo drapeau da serment Ce serment moi le soldat Mohamed Bachir Kanté je jure de servir mon pays avec honneur discipline abnégation et loyauté waaw jurer de servir son pays avec honneur discipline abnégation et loyauté et c'est ce serment qui m'a poussé même de servir avec honneur mon pays. Parce que mon pays, c'est pas, c'est pas, ça ne se base pas seulement sur l'État, euh, mais c'est tout le Sénégal. Si je dis mon pays, je dis que c'est tout le Sénégal. Et jusqu'à demain, je suis prêt à servir, si l'armée me rappelle. Car durant deux ans, c'est très difficile de rester dans l'armée. Durant deux ans, on est qui avec honneur discipline abnégation et loyauté di liggéey courage parce que tey été dit maintenant naa ne bat mais chef yep, presque xam ma bañ na ko ba ñoom CRAP lañ may wooyee sama indicatif commando de recherche et d'appui dans les profondeurs Lolo nekkoon sama indicatif te ba tey moom laay wuyoo parce que ñun liggéey rek a ñu tax a jóg liggéey rek a ñu ñor waaw bi fee amee bi ma ñibbisee congé ma dem euh, def li ñuy naan visite libérale ma def visite libérale ba pare ma defee visite libérale quand j'ai terminé ñu waroon euh, def suñu pot le lendemain taxaw carré d'armes ak seen sol tenue pour la dernière fois ñu war a rengagé rengagé ñu war a libéré libéré bi la mu benn gradé woo xamal ma ni carrément bon on ma que suba nu de demain, mais sur demain, tout ce qu'on te dira il faut le prendre avec philosophie parce que si on a na affaire yi lan moo naroon a xew sanction bi daan sama kaw mais man boobu ba tey jàppoon naa ne dama doon engagé parce que bu ma duggee armée ba ni may je ne peux pas dire que j'étais le meilleur mais j'étais dans l'eau des meilleurs formation jot une très bonne formation té tamit nous étions prêts à l'appliquer jusqu'au dernier souffle de notre vie légui bon mu ñëw taxaw carré d'armes. le lendemain bi ñu joxee le diplôme CP certificat pratique boobu ma ngi si jël euh, deuxième système sama promotion sama diplôme FTA avec une moyenne de 17,37. mention très bien chef de corps jox avons ko ba paré waaw ñu nuyu ko ku nekk ngi après euh, ci lañ ma xamal ni certificat de bonne conduite bon moi aussi je l'ai pris philosophiquement militairement waaw parce que tey bon soldats sénégalais ils nous ont appris ce que c'est que la discipline militaire la discipline militaire fait la force principale des armées et répond à la fois aux exigences du combat et aux nécessités de la vie en communauté comme j'ai pas le droit de, de, de me mettre en colère pour le chef. J'ai pas le droit d'insulter ou bien de, de, de revendiquer parce que moi, soloon tenue waaw ma pare bi ñu joxee sama classe CP après ñu ne leen ñoom nañ jaar PC ñu jël seen certificat de bonne conduite man moom jarul may dem bon ma pareil. bi photo wu sax photo quelques photos là jël ak sama classe mais en ce moment c'était c'était dur ma yegg si kaw si mi sama tenue parce que boobu jotoon naa rendre partage ba pare tenue bi ma dese woon ma maa ko moom man maa ko jëndoon ak sama xaalis ma rendre partage ba pare ma rendre partage ma jël sama quelque quelques bagages ma dese woon ci kaw foofu ma lem ko ba mu nice dugal ci sac bi di xaar sama solde waaw affaire bi nag métti woon na parce que en ce su ma toogee xool sama classe yi ñoom ñëpp ñu ngi téye seeni papier man benn papier laa yor muy lan diplôme CP man laa war a ñibbee suñu kër lan laa war a wax sama yaay ban motif laa ko war a wax parce que tey tey jii sa doom dem armée def fa deux ans ñuy liggéey ngeen di déggante deux ans tey ñëw na kër ga ak ànduwul sax li ñuy naan kayitu suukar parce que CP tey tey jii CP artillerie mënu ma koo déposé si benn entreprise mais man je suis artilleur spécialité boobu laa yor tey tey entreprise boo taxaw nga ne militaire nga li ñu laaj mooy certificat de bonne conduite loolu armée noonu la ma ko waaw ci laa ñibbi nag suñu kër jël samay bagage ñibbi booba léegi maa ngi toog bon depuis euh, le 30 avril bu ma génnee ba ba tey mun naa ne des fois quelque takkale lay am des fois journée waaw des fois ma toog mais chaque jour je pratique le sport dem le matin le soir pour maintenir ma forme parce que mon bataille est dit, jii demain, l'armée pourra me rappeler pour aller encore servir ma nation parce que mon lola je l'ai dans le cœur dans l'esprit et dans le corps et puis dans le sang même rek lañ xam lañ depuis boobu nag il est devenu un grand chômeur toog nii am liggéey parce que tey tey jii si honte nga dem taxaw si entreprise sénégalaise nga ne militaire la nga génne leen sa état signalétique génne leen sa CP ñu laaj la certificat de bonne conduite jamono ji vingt et unième siècle soldat sénégalais ancien militaire bi laaj certificat de bonne conduite amu ko tout le monde vont demander la question kii lan la war a def ba ñu xañ ko loolu waaw waaw message bi may je euh, di leen woo ci sérénité être encore plus serein te tamit continuer di aussi leur soutien parce que t'es dit si ce soldat est là depuis neuf mois sans travailler c'est c'est c'est à cause de ce acte qu'il a pratiqué envers la population sénégalaise moo waral moom mu ñëw ba tey tey jii mi ngi toog këram durant neuf mois ndax acte boobu xëy na lu mënuloon ñàkk la mais bon mu ngi leen di woo ci ci ci ci ci bépp soutien waaw que ce soit ñu jàppale ko pour mu liggéey que ce soit ñu jàppale ko financièrement waaw mu ngi leen di xaar si bépp côté incha allah rabbi waaw di leen ñaanal aussi yàlla may ñu jàmm Sénégal suñu réew defal ñu jàmm jàmm sax fi si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw. waaw di remercier Mafia Kac Kac TV bon di leen encourager si li ñuy def nii parce que tey mënoon nañ toog ne ah durant neuf mois garaawul mën nañ bàyyi affaire bi mu jàll mais seen liggéey dafa rafet parce que. bu ma xoolee boobu léegi mafia kàcc-kàcc laa gis les premiers à se présenter pour pour pour m'aider dans ce combat que je suis en train de mener waaw di leen ñaanal yàlla na yàlla sàmm dolli xéwal yi dolli kattan bi dolli mën-mën bi si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam